في بما بنعمة وقناعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة taati lana bi dafari xam ngeen eh, ñi ngi commencé woon firi eh, nuurul basar bu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci fan yi ma nekk Espagne ca Gizona ci ñoom Abdou Gaaj ak mbokk yi firi nañ ko ba egg ci baabun fii dikri baadi mujizaati yi fi muy tuddee lenn lenn ci mojisaat yonent bi euh, waxoon naa leen nag ne fële euh, maanaam firi textu nuurul basar bokkut ak gàmmoo nuurul basar parce que booy doo ko gàmmoo xista bu mu tudd ak xew-xew bu mu tudd da nga cee taxaw jëm ko nettali tënk ko wala ngay jeexal ko kii nag moom suñu souci moo doon jàng way wi euh, wëral Euh, baat yi dafa bari léeg-léeg yuñ ci masque yu yàqu nga defar ko euh, baat yi itam nga jëm ko firi ci na ko borom waxewoon woon yenn yenn xisa yi ci luy luy luy jëriñ kuy déglu waaye nag ku dem bay gàmm nag moom buñ ne badar nag yaay seeti badar waaye du suñu liggéey ci ci art ñuy def <coughs> léegi nag mu ne sadaqallahu ci way yi jiitu ci jundu bàyyil boobu teel na ko way demagul màkka waajagul sax mu ne sadaqallahu albadra minhu bi ayatin fa faadat misl alxasa wa rimaali baaduha ma tadaafarat qablu fi rusli fa kullun min kafihi alxattaali ah, mu ne sadaqa dëggal na allahu yàlla albadra yonent bi tudde na ko weer nag ay yoon ci woy wii moom daf koy tuddee weer hmm. diggante jant ak weer ci euh, jàngale alxuraan boo ko seetloo dina la ne leer gi ci jant bi la ne weer wi jant bee ko jox leer euh, yàlla itam moo jox yonent bi leer buy tudd yonent bi badru toujours moom xam na te arab ñaare buy wax badru fekk na weer wi jël forme ba leer bañ naan badru timmi yonent bi itam bi muy laata tanazul ak bi muy laata am émission am mët na kon di diine ji ba yàlla ne diine ci tam mëtal naa ko suñ biir daal mëtal ci moo tax ku ne war a góorgóorlu moom daan doon naa wax ay ndanguy jàng may leen ci lislaam mët luul obligatoire waaye nag bëgg mbëcc moom obligatoire loo ci am nag jël mu ne sadaqallahu man dëggal na yàlla al badra yonent bi kim niraleel weeru badar yëkkatiku yaag leer gaag macha allah minhu ci ay maye mom yàlla yàlla may na yonent bi dëggal ko ndax liñ jàng ci usul mooy bu ab yonent ñëwee ne yàllaa ma yónni buñ ko ne luy sa tegtal la muy wane mooy jisa dafay xotti aada du bokk ak maanaam ni mbir yi demee normalement euh, léegi nag bu fekkee ne am na beneen jaamu yàlla bu yàlla méngoo euh, moom am kéemtaan gu xew ci loxoom du bokk ak mojisa karaama lañ koy tuddee mojisa karaama nag li leen wutale ci kuy jàng mooy ab yonent bu defee mojisa daf cee bàkku dafay def challenge ku mën defal samp samp samp ndënd la ku deful ñu xam ne kii yàlla moo ko yónni moo tax borom murshid ne id mojisatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hada al abdu fi kulli xabar mojisatu yonent yëpp dafa mel ni ku lépp mojisa yàllaa ngi naan sama jaam bi lu mu wax dëgg la ku ko weddi dina def léegi bam ne alxuraan waxoo yàlla wax yaa ko wax siifar yëpp di ko wax yonent bi yàlla tontu ne ne kon nag indi leen alxuraan yéen itam bu mel noonu comme fasaa rek te fasaa ngeen arab ngeen muy arab mu borxal ci nag fa in lam tafaalu nga def tiire boo doon bind tey ne walam tafaalu dafa tiire fa taqu naar su ngeen deful li ma wax nag te du ngeen ko def mukk nag kon na mooy mooy tindi ko safara ba léegi kenn defaru ko alxuraan te loolu mooy mujisa bu dee nag karaama moom ki yàlla teralee karaama ndax karaama sax baat bi teraanga lay firi ak tedd moom sax léeg-léeg du ko yëg ndax tax karaama gi boroom karaama gi taxu koo jóg ña cay dëgëree moo tax mu jóg moo tax léeg du ko yëg léeg mu yëg ku rus moo tax nag oote karaama garaaw ndax dafa wuuteeg nattiiru karaama borom karaama dëgg du ko yëg karaama dana ñëw di ñaan gu nangu moo ñëw ñaan gu nangu moo tax ñaan di lu rëy rëy dëggal la ko ci aan bi aayaatin ci ay kawtéef mooy ay karaam ay mujizaat fa faadat te ñu bëbb mislal xasaa kem ay jëmbaraay ci bëri wa rimaal ak euh, euh, sa be beeñ bi xam nga bu ñuy wax lu bëri te xam nga mu toll naan comme beeñ bi comme beeñ comme karam li aali nag euh, karama itam bëri nañ ndaxte su fekkee ne inna atinakal kawsara karama la te ñetti laay la kon divisé par alxuraan yëpp moo lay jox idée ci mujizaat yi te sax am na yeneen yu bokk ci alxuraan mu ne baaduha lenn ci mujizaat yooyu maa tadaafarat mooy la tegaloona xablu cëg jëkk fi rus yi ci yonent yee ko jiitu woon bépp mujisa bu ab yonent am dañ koy compter mbokk ci mujisa yonent yi Euh, lu yëngu la ko yëngale këpp doole ndax alxuraan wax na du sax xadis alxuraan ne yonent yëpp yàlla dafa daan jaayanteeg ñoom ci buñ jotee jamono yonent bi nañ ko gëm te ko dëgëral kon nag ñoom ci njabootam lañ ko fa kullun képp ci mujizaat yooyu ay fa kullu haadihi mujizaat fa kullun képp ci mujizaat yooyu min këffihi jóge na ca tinqam la moom yonent bi yi kay dottiyaakoon ah, maanaam këffu mooy loxo xam nga dañ ko mel ci tabe mu ngi mel ni taw tax ndox sax du ci jógee mooy waa ji comme asamaan du téye taw ku tabe itam du téye may yonent nag mbooleem mujjizaat yooyu yonent yi sax am plus yi mu am yëpp mi ngi jóge ci tinqam la lay dotti mais mi ngi lay fàttali ne loolu waxi la nérale ci rhétorique ci balaaxa lu nangu la waaye nag yoon sax ci karamam bokk na ca ndox génnee ci tenqam li ak diggante baaraamam yi waxul deret ndax deret lu normal la ndox a ci génne ndax dañu nekk ci xare bu metti amuy ndox nit ñëpp mar mu ne ndax kenn amul as ndox ñu indi la fa nekkoon ak sa néew mu dugal ci loxoom téere yépp ne muy ball di sotti comme robinet ba ñaari junneeg nangam naan mu des ñu yóbbulu ca waaw donc këful xataal tashbih la waaqi la itam su ma la maa su ma gannaaw ga nag la maa waafaa ba dikkalee na moom yonent bi tadaafara ba tey toftaloo tegaloo aayun ay mujizaat maanaam ay kéw kéemtaan amma yoo xam ne matala nañ ahlal ulaa kaw wa ahlan sifaali ak ñooñ suuf la ci jublu ahlal ard maanaam kaw ak suuf yëpp yi feeñ nañ ci suuf gis nañ ko kaw itam ku yàlla yéegee ba nga passé kaw loolu itam feeñ passé mujisa passé ko معراج دول لو سامبل داخ يالا موكو ارغومنتي سبحان الذي اسرى بعبده بوبا لاكو يالا ريغلي ملي ني سيلو نكو داخ يالا مست واخ ني ييمو تي كي ييك داف دافا ييمو تي كي كو ييغا فك موي الله بولون وا هل الذي سرى يو خامني تي يونتي ميسرا واي داف ني سبحان الذي اسرى بعبده sàbbaa leen kii rañaane jaamam bi ñii laajte nag kéemtaane rañaan dañu war a dellu si seen ndax alladi asra bihi ki ko rañaanee moom yàlla ndax mën na ko wala mënu ko julli du discuter yàlla mën na wala mënul ñi bëggoon nag nga discuter ñoom ci xel ñu indi leen ci loi physique dafa gaaw ak yéen waaye dem na gaaw gi nag moom moom kooku loi rek la fooy dem rek kattan la nga mën a demee mooy déterminer temps bi ngay dépensé dox boo ko teg bicyclette boo ko teg oto boo ko teg avion boo ko teg kattan lu amul fu mu yem bu ba bu defee temps dootu am mooy yàlla subhanahu wa taala musique naan dañ ko def dañ ko ñàkkal fii amal ko fii ankay ah, mais nag disque li yàlla argumenté mooy ba muy wax mu ne wa laqad raa min ayati rabbihil kubra wax ci xóot la ndax al ayatul kubra loo xam wala kubral ayat yàlla ne wala qadra a gis na min ayati rabbi yi lenn wala ca kawte fi boromam al kubra ya di way màgg yàlla am na kawte fi màgg wan na ci yonent bi ña gën a xóor ñoo ne déet wala qadra a gis min ayati rabbi yi ca kawte fi borom al kubra ba ci gën a mag mooy allah yàlla nag bi mu koy argumenté mu ne afatumaaruunahu ala maa yara xanaa mën a werante da ngay werante ni ci lu mu gis yow gisoo ko ngay werante afatumaaruunahu ndax da ngeen di dàggeeg moom di werante yoon ala mara ci lu mu gis waxati ne maa zaaxal basaru maa taxa ba muy xool romb lañ koy xolloo ñàkk koo gis ndax bu fekkoon day gis yàlla mën na koo ñàkk gis mënta am ji waaw mislu shamsin ruddat bu ay da xurubin muy benn wa gamaamin qad kaana da idlaali muy ñaar mu ne comme kem mislu shamsin kem ab jant boo xam ne ruddat delloof na ko baada bu ay da xurubin suñ tuuti rek gannaaw bu mu soyee te fekk am na luñ bëgg a pareel te parewul mu ñaan yàlla jant bi ne tëllaat bañ pare mu door a soyaat raddu shamsi boobu mojisa kawniya kooku itam kooku mojisa la wa gamaamun wa gamaamin bu la neexee wa gamaamun bu la neexee misla gamaamin wala nga yokk ci rek wa gamaamun ak aw niir waa xam ne xat kaana nekkoon na daa idlaalin di borom ak keral wér na ne fu mu sa toll rek fu am naaj am na niir bu tollook moom moom di ko keral ku seetlu seetlu ku ko seetlu du ko seetlu lu ëpp ci moj sañ xam nga nit ñi duñ ko seetlu naa la wax de billaahi départ nañ gannaaw Ibadan jëm si Lagos bankal jamonoy guerre civile Biafra bankal jamonoy nawet muy taw bankal muy guddi lëndëm bankal ñu indoo liggéey sonn maa ngi ngéej ñu ne nañ tëdd rek fu ma fekk laay nelaw bàyyi nañ faf dem Lagos mm-hmm. yooyu ñu di fuuti yàlla dem bokk ak moom oto bañ ne ñamas ñamas mu ne sa kurus tu bàyyi ngi kurus mm-hmm. daf may feeñu daf ma ci associé mais nag topp moo ko ba ca fin ba mm-hmm. xaw lu mu ci def delloo ko ñu départ man mi ne woon tey lay sonn tey lay kii ba ma séenee lumière yi Lagos ya taxut ma yëg dara mu ne ma naka ma hmm. ne ko mu ne seetloo ne dañoo lemal yoon wi hmm. uqsimu billahi hmm. woon dañoo lemal yoon wi ma ne ko ah man de bàyyi xaw ma lem yoon lem li ma ne puusiwu bu ko nag mooy laaju ma ko su ma demoon ba bëgg a lem yoon ëllëg lu may def bu normalement waroon na ko mu parce que moo ma ne an kurus moo ma ne naka mu waaye je suis bloqué je sais pas pourquoi نعم، <laughs> مثل شمس ردت بعيد غروب وغمام قد كان ذا إزلال كده خدق من لكم غمام وغمام مثل غمام لا أطف كتر شمس والمعطوف على المخوض مخوض ثم علم الغيوب فالغيب باد فلهذا الإدبار كالإقبال لا إله إلا الله مؤدي بلن معجزة من ثم علم الغيوب تبيتا كم يفدوي يكو تي يالا بغا وان لو في نيكون nga nga xam ko wax ko mu am doy na ci rek nee alquran ji fihi nabawu ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum alxuraan ji moom lay jaar xabaar yi leen jiitu ak yi yi ñëw seen gannaaw ak lii réglé seen diggante yëpp mi ngi ci nee na misla ilmil topp xam faddu yi mu ne fal xay bu faddu baadin aji feeñ la ci xàq yonent bi kon nag yow loo lu faddu rarement la ko di xam moom la yàlla moo ko moo ko may di ko woon xëy bu mu ne fa li haada ngir lii ma wax nag mu nekk mujizaam al idbaaru dëddu ci xaqa moom kal iqbaali ni ki jublu la dama daan na toog ne zaru zahri lil malaayika toog leen nii mais bu ma kenn faree gannaaw bàyyi leen ko malaaka yi ci ko xam ne loo wax dëgg la daan na ndax defar leen sàpp yi di wax ne nag su ma kàbbaree li li may gisee suma kanam noonu laa gisee yéen ñi suma gannaaw te gannaaw ay bët nekku ci basar lu mu jubloo la basira nag amul xijaab su ma axayaa topp dekkal la ñu bëri dafa dafa siiw rek waaye ñu summa xeetoopu dekkal na al amwaata way deeye minhu ci summa ixyal amwaati minhu ixyal amwaati la war a doon wala mu ne summa axyal amwaata minhu jógee ci moom ah astafurlah ok summa axyaa topp dekkal duaawun ak ñaan minhu bu jógee ci moom yonent bi al amwaata way deeya yonent dekkal na ko dekkal Isa moo ko siiwee alayhi salaam ci ay mujisaatam waaye kii moom am na soxna soo xam ne moom doom ji dafa dee moom yoon si wax wax wax mu ne ko daal kii ah yonent ñaan mu dekki hmm. waaw xam nga kii dundal moom ngay ñaan boo ne allahuma rek ki ngay adressé mooy kii dundaloon mooy ki rey hmm. amul benn problème xam nga mujisa moom mujisa xam nga li muy firi ajazahu yujizuhu ijazan lottal na ko hmm. kon nag al yu xew yoo xam ne dafay lottal lañ xel ci la miinoon safara am na nature bu ko yàlla bindee mooy lakk yonte Ibrahima ñu sànni ko ci safara moo war lakk ki defaroon xaanuun bi lakk loi bi lakk intervenir ne ko yaa naaru kuuni bardan maa la defoon ngay lakk yow yow léegi fii safara si Ibrahima dugg nekkal di sedd mu sedd bàyyi na bu yuuxoon wax wa salaaman rek sedd ba gaañ ko ndax bu sedd commencé topp ndigalu yàlla te prene wuñ ko moom itam day day lëjal ni safara yàlla ne wasalaaman ala ibrahima te wa araado bihi kaydan fa jaalnahum asfalina ba léegi axsarina axsarina axsarina maanaam asfalina mu ne ñu bugg koo fexel ma def leen ñu perte jëm suuf bu kalimatullahi al ulia ba léegi yàlla du seetaan waayam summa ahya al amwaat minhu duaaun wa alayhi taslimu baad al jibaali wa alayhi ci moom yonent bi taslimu baad al jibaali nuyoo buy dégg bu muy dégg moom wala ñeneen sax di ko dégg lenn ci xeer yi mu ne yonent ne maa xam ci màkka doj woo xam ne waxtu mu ko rombaan mu nuyu ma oo ma ci nubu wóolu xam ne foofu bëri na doj ki yàlla def doj yi di ko nuyu xeebut soxna su daan jaay caaf foofu ci safara dafa daan jàdd di waxtaan ak moom comme maam caaf ci yéen amoon na maam caaf ñun dañ ko amaan ko amaan pikin ne ak tànk yooyu dem jënd caaf am na maam caaf boo xam ne yoon daf ko daan romb dem toog di wax ak moom bii wax gi léegi de Quraysh ñu naa